alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi furudin wa sunan sakartu li annahu qad saaxani li watanin bi nafa maaxani وغادني لي بالتخلي من بعد ما خسب بي تخلي wajalani fi ilal ulumi wal fawsa bil amali bil ma'lumi summa salaatu bi salaamin tabi'a ala allazi xasdi an atabia ala allazi man bi maradi ixtada fi sirri wal jahri yakunu muhtada هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسعى دينا وزيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى سفيع وعلي وسهبه النجوم kon alhamdulilah mbokk yi ba tey ñu ngi ci bis bi ñi taxaw ak soxna Astu mi nga xam ni bokk na ci jëwrin yi nga xam ni ñoo taxawal liggéey bi ci wàllu soxna yi kon moom it dañuy daal di jël kàddu gi laaj ko soxna Astu nan nga bisee bisub ren ak yokkute gi ci am ak tawféex gi ci am lan ngay soññee sa mbokk soxna yi nga xam ne ñu ngi fii ci bis bi tey. salaamaaleykum ngi leen di tey jéeglu bis bi danañ ko gisee moom mooy sant sëñ Touba rek sant sëñ Touba bu wér. sant nag taxawaayu soxna yi moom wax dëgg yàlla am nañ pëstéef lool man sax ñoom ma ëpp pëstéef man daal maa ngi seen ginnaaw rek di leen ñaanal nag sëñ Tuubaa dafa leen tawfeex rek tawfeexi sëñ bi rek ak ngërëmul sëñ bi di ñaanal sëñ Cheikh nag suñu borom dafal ko yokkute ak mboolem ñu nekk ci ginnaawam ñëpp ci barke sëriñ Tuubaa suñ xool seet na ba mënuñoo wax sant nañ bu weer sant nañ waaw ah, nan nga gisee mobilisation bi nga xam ne soxna yi dañ def nañ ko mboolem ku nekk jiwaalo tey ji rek tey bàyyi nga sëy te ñëw fii ngir jàpp ci bisu màggal xasida gi ñi nga xam ne ñu ngi koy def fii tey eh, nan nga gisee taxawaay boobu waa xam ne sëñ be fi ne rek sëñ bi rek fii moom lu fi waay def sa bopp nga ko ak sëñ bi sëñ bi daal la fi dajale ñëpp sëñ Touba rek daal la ñuy liggéeyee yàlla na nu nangul ta fay nu rek waaw moo fi dajale ñëpp taxawaaye daal moom tubaarkaala rafet na lool kontaan nañ daal wax dëgg yàlla waaw sant tey jii gis nañ ni waa ñu yokku na waaw ba gis nañ ni yokk nañ ci wàllu xéewal yeeg wàllu gàtt yeeg wàllu kii loolu loolu ndax xam nga xayma bi nu mu toll ah wax dëgg yàlla xaw ma xayma bi nu mu toll moom wante nag mbirum sëñ bi noonu la amul tànk ginnaaw tànk kanam rek loo mantan rek bu déwénee da ñaan yàlla man lu ko te nanga ko bëgg nga koy defee mbirum sëñ bi moom deel wax rek loo bëgg rek boo ko waxee sëñ bi def ko waaw ndax bin koy programme yoruñu dara te lépp sëñ baa ngi koy doxal te xamagun fa mu itam nag wax dëgg yàlla lépp loolu njort ki sax xel rek tam ànd ak pas-pas sëñ Touba dana def loolu ñun moom foofu rek lañ ko teg ànd ak sëñ bi rek jiital ko waaw. waaleykum wa mbokki jullit bi mbokki taalibe yi naa ngi leen siyaare di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen ñun nag waa Jaalibatul Maraaxib bu Jiwaalo. daanaka seeni mbir daa tàbbi ci biir mbuur mbiri sëriñ bi moom la dara dul tuut rek waaye daanaka ñun bisu mbuur mooy sunu bis euh, bu nu ñaanale sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér noo ngi ñaanal sëñ Amsatu di ñaanal sëñ Ndiaye xasida ak sëñ si la man mii di wax ak yéen nag maay Moussa siise waañ wi ñu ngi fi teg sëñ Allah mu jógee mbuur ak sëñ Ablaye Diop ak sëñ Ousseynou Lo ak mboolom ñu ko àndal ñun nag dañoo doon superviseur bu nekk ci biir waañ wi ñoo xam ne dañuy xool képp kuy def lu dëppwul ak li nga xam ne mooy liñ fi santaane rek wàllu woowu moo nu fi bàyyi kon noo ngi leen di sant bu baax di gërëm bu baax maanaam booy xool bi ñu commencé bis beeg léegi war naa toll ci juróom-ñaari at ngont lañ ko daa def rek nag waaye fi mu ne dem na ba nga xam ne mu ngi mu ngi mu ngi xaw a yendu fanaanaale waaye am ngont la daan doon waaye noo nga noo ngi santaat suñu tubaab bu baax ndax yokkute am na ci bu baax a baax waaw ndax xam naa ne xéwal toll na ci ñetti nag ak yenti téeméer ganaar ak ay fiir rek lépp am na ci xewal daal sant nañ ci baax a baax a baax sant nañ baax noo ngi gërëm it waa Juwaale gépp gépp gépp gépp gépp waa Juwaale moom dama leen yoral ak cant goo xam ne damaa bëgg sax ca baas ba bu ma demee incha wax ko ñu yëpp dégg bu jaay xasida yi sant gaa yi xasida yi damaa bëgg sant waa Juwaale ndax seen taxawaay daa am solo lool lool lool ren ran jii moom dañoo rawati am ran moom ñëpp da ko yëg mbooloom ku nekk Juwaale di góor di jigéen seen yëbbale kawe na sunu njort waaw man ak sëñ Cheikh Sylla ak sëñ Abdou Akim ñi nga xam ne ñoo waroon ñu ñu ñu ñooy encaissé ñun la yàlla def ñuy encaissé li ñëw ci sunu loxo kawe na sunu njort te lépp wax dëgg yàlla yàlla dogal na tàbbi na ci bis di jigéen ak di góor ak di jigéen ñëpp ñëpp ñëpp a ko jot ñëpp a góorgóorlu macha allah. ñoo ngi sant bu baax tey liggéey bi tegoogul na ci yoon ñoo ngi ñaan nag suñu tuwaay jàppale nu ba lépp mat si ni ko sëriñ bi bëggee te yàlla buñ ci yëg sunu bopp yàlla nañ ci yëg sëriñ bi képp barke Serigne Touba. waaw bi day mel ni euh, bisu xasida bu bu jiwaala moom day bis boo xamante ni ci bis yi la. ndax lu tax mooy dañuy gis ni murit ak tijaan ak ak laayeen ak ba ci kudu jullit sax loolu nan ko gisee sëñ Moussa. macha allah ndax gis naa ay chrétien gis naa fi ay pël Fuuta gis naa fi ñëpp mais loolu yëpp sëriñ bi moo mel noonu xam nga sëriñ bi yàlla daa dogal fépp fu mu nekk rek fu ay gaayam nekk rek mm, jikko ju rafet ak taalibe ñi koy naw ak ñu koy bëgg darul darul yem ci ñi nga xam ne ñoo gëm sëriñ loolu yàgg na daa yàgg ndax man gis naa koo xam ne roof la tudd te chrétien la te mu ngi ci biir liggéey bi kon loolu sëñ bi wane boppam sëñ bi wane ne simaawul war a asiri la del lay fii di moom lay leeralaat ci liggéey bi rek toujours nosug mbindeef yi ci boppam ci loxoom la nekk ku yàlla taw feexel nag da ci dugg ku yàlla euh, nara taw feexel da nga dugg ci biir liggéey bi yaa xam ngay chrétien yaa xam loo mën a doon waaye na ko xol bi sopp rek waaw kon nag ñoo ngi ñaanal ñëpp tawfeex sëriñ bi dugg ci wàcc ci ñëpp barke Borom Tuubaa jërëjëf jërëjëf sëñ Moussa moo doonoon sëñ Moussa di saytu liggéey bi nga xam ne moo ne ci waañ wi ci daayira Jaalibatu Maraaxib kon xam naa dañuy daal di woo dem saytuwaat sëñ Ablaye ku mel ne sëñ Ablaye wala jëwriñ ji fi nekk te yor wàllu waañ wi sëñ Alla incha allahu taala kon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaw alhamdulilah kon mbokk yi ba tey ñu ngi ci bisub uh, xasida Jaalibatu Maraaxib ki ñu taxawal nii mooy sëñ Ablaye Diop ñu ràññee ko ci dëkk bi bokk ci jëwrin yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi rawatina di jëwrinu daayira Kanzul Muhtadin yàlla dogal nag mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo jiite waañu yi kon sëñ Ablaye ñu ngi lay laaj nan nga gisee tey bisub ren bi nga xam ne mooy bisub xaside yi nga xam ne ñu ngi koy defee fii jaalibatu te mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp ànd ko tey bis fii aouzu billahi a sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim ala nabiyillahi sayfillahi saydina nuur rasulillahi barkim nuuru daareeni asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñoo ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di jiital si ziar bi nuyoo bi Serigne mun di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. noonu la ñuy ziaree it Serigne Modou Menda di ko ñaanal it mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba bëgg a seen maam ñu def si la kawe seen jort. sëñ masamba di santaat Serigne bi rek xanaa si taw feex gi mu ñu defar ndax sëñ Abdou Khadre daf daan wax ne jàmbaar amul ku ñu dimbalee am. te lii du liggéey ndey du liggéey bàyyi ndimbaluk Serigne Touba la ndax moo wax sama kiraama yëpp mooy li ma bindal saa bopp te lim bindal boppam kenn umpalewul ne xasida si Touba ko bindal boppam kon bu ñu dimbalee ñu am bis di si di si di ko sant di ko jaare si xasida yi loolu du jàmbaaru kenn ndimbaluk Serigne Touba la maanaam yëg-yëg boobu lañ si am daal di ñaan yal na Serigne bi nangu lépp si daraja maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf sëñ Ablaye yow mi nekk ci waañ wi tey nan nga gisee waañ wi ci ak yokkute ci ay xéewal ci li fi daanu ci ay gàtt ci li fi daanu ci ay ginaar loolu nan nga ko gisee nan nga ko jàngate tey. waaw lépp it day delluwaat si sëriñ bi rek ndax sëriñ bi day wax ne sama tey gune day gàccaal sama démb kon bisu tey bi day gàccaal bis ya fi jaaroon te liggéey sëñ towaa moom continuité la. waaye it di santaat di santaat suñ mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi ah, xëy na dañuy njëkk a cité ñi dëkk Joal ndax it taxawaay bi du tey kese lépp lu am ci dëkk bi bàyyi nañ seen yitte bàyyi nañ seen liggéey ngir ngir ngir taxaw ci loolu ngir mu baax loolu ba tey day dugg si ndimbalu sëriñ bi du ku ko bëgg def ko waaye ñu dagaan sëriñ bi it mu saxal ñu ci loola. ba ca topp it mooy suñ mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo nekk mbuur muy jëwriñ àll fay mi nga xam ne moo doon joxal kàddu yi léegi ak jëwriñ àll Diop ñoom ñooy suñu kilifa ci liggéey bi ndax bañ ñëwee laa leen wax ne liggéey sëñ Tuubaa de kenn nay wax ñi des di jëf kon yéen yor leen ndigal li waa jiwaalu di leen jëfal ñu ànd liggéey bi liggéey bi nag yàlla na yàgg yàlla na te lépp it yàlla nay Serigne Touba waaye di ñaanal bu baax it jëwriñ yi nekk jiwaalu muy jëwriñ Cheikh Silla di jëwriñ Cheikh Mbaye di jëwriñ Baye Jibi jaw dañ leen di ñaanal ñu yàgg fi la tànn weer damay faral di wax ne jiwaalo barkib sëñ Cheikh Fall Mbawor lim am benn dëkk amu ko Touba sax amu ko mooy jëwriñ yoo xam ne dañ laa jiite man la si liggéey Serigne Touba te di la wax dëgg te jiitu la ci dëgg ga kon jëwriñ yooyu lu ñu yàgg rek doyul yàlla nañ gën a yàgg yàlla nañ gën a wër yàlla nañ gën a yokk di wax ñu ñi nga xam ne nag ñoo topp si seen ginnaaw nañ leen fexee topp comme jaam maanaam comme comme comme taalibe ak sëriñam ndax ñoom mat nañ ñu sëriñ ñun ñu xëy na sax ñun matuñu leen taalibe ndax ay jaam xeebu lañ waaye daal ñu ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ak wér te yàgg ñoo jiite te lépp dugg si biir liggéey sëriñ bi di jégaluwaat kàddu yi baax jërëjëf sëñ Ablaye moo doonoon sëñ Ablaye Diop bokk ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Jiwaalo di liggéey liggéey bu rafet